tey ajjuma ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat wu examen wu bés bi ci juróomi téeméer ak ñaar fukk juróom ñetti test yi ñu def tey juróom benn fukk ak juróom benn ñëw nañ positif bon nag am nañ doomu jàngoro bi si juróom benn fukk ak juróom benn yooyu juróom benn fukk ak benn ay cas contact la yu ñuy suivre ci suñuy service juróom yi mooy cas bi xamante ne mooy transmission communautaire mooy ku ko am te xamuñu fan la ko jëlee juróom yooyu benn bi fii ci dakaar la mooy Médina ñaari Touba benn bi Mbacké benn bi puut ñu leen di yëgal tam ne juróom si ñi ne woon hôpital di faju wér nañ ci bésu tey bi dañ leen génne beneen mbir boo xamante ne war nañ leen ko xamal mooy depuis ci suba am na benn cas grave bu ñu yóbbu réanimation ñi ci des seen wérgu yaram mi ngi am tànn bu ñu xaymaa ba mu commencé ba léegi juróomi téeméer ak ñeent fukk juróom ci ay kaa lañu ñu fii ci réew mi ci lim boobu ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn fukk ak ñaar wër nañ ci kenn évacué nañ ko juróom benn génn nañu àdduna bon dëkk tey ci siiñu hôpitaux ñi xamante ne ñu ngi leen fay faj tollu nañ ci ñaar téeméer ak juróom ak juróom-benn bu ñu xoolee situation bi ñu leen décrire tey am na ñaari jàngat yoo xamante ne il faut que ñu def ko ci jàngat bu njëkk bi mooy que ne feebar bi yab na bu baax commerçant yi ci juróomi cas communautaire yi ñu am tey ñeent yi dañuy liggéeyee ci marché bon dëkk ñuy demander que ne solu masque bi ñu bañ ko bàyyi mukk ci li jëm ci marché yi respecté bu baax arrêté bi xamante ne ministre de l'intérieur moom la génne am na beneen mbir boo xamante ne tam lu am solo la mooy dañoo seetlu ne jokkalante bi région ak région dakkul ba léegi te loolu daf ñuy ëndal ay tolof tolof yu mag ci suñu liggéey ñuy wax ne tam demandé nañ suñuy service ñu yokk bu baax a baax prélèvement yi ci cas contact yi pour que ñu mën a ràññee bu baax a baax a baax ñi am feebar bi ci biir te waneeguñu ko ñu ngi encouragé bu baax personnel de santé bi di leen félicité seen liggéey di wax ne joxe nañ ay ndigal yu wér pour que ñu yokk bu baax a baax a baax seen kaaraange ministère de la santé et de l'action sociale mi ngi ñaan population sénégalaise yi ñu topp bu baax a baax ndigal yi ñu leen jox pour que ñu mën a xeex génn Covid 19 bi ci réew mi maa leen di remercier bu baax.